mi ngi noonu mi ngi noonu nous sommes à saint qui accueille pour la première fois le président Ousmane Sonko dans cette caravane nationale la caravane de Yewwi Askan Wi nous sommes bien arrivés dans la ville tricentenaire Saint-Louis ndara ngi nii Sonko et les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi taxi fi nga xamante ni moo di Saint-Louis Ndar Géej Ndar bu Golbert Diagne Ndar bu Chimère Ndar a ngi nii Ndar a ñu dem Ndar a ngi nii nous sommes à l'entrée de Saint-Louis juste à hauteur de la gare routière mais déjà la foule est immense. La foule est importante. La foule est surexcitée. Kenn fay lu Macky sa baay ñëw na ndara ngi la coalition Yewwi la coalition Yewwi Askan il est 21h30 à saint la caravane nationale de Yewwi Askan Wi vient d'entrer dans la ville tricentenaire Saint-Louis Ndar Géej Ndar ngi nii Ndar a ngi nii di accueillir ay doomam mi ngoog mi ngi noonu Sonko daa jàpp Sonko ba président Ousmane fi mu jaar ak ñun fi ñu jaar dafa mujjee am problème ñun dañuy on est obligé de retourner dem fële nga xamante ne fa la jaar parce que corniche bi la jol kon dañ koy retrouver fële nga xamante ne moom mooy ci corniche bi moom président Ousmane. mi ngi noonu président Ousmane Sonko dafa progressé président Ousmane Sonko dafa progressé nit ñee bëri nit ñee bëri mu jël beneen côté bi mu jël corniche bi ndax lii buñ ko continuer dina métti lool ci automobiliste yi ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ñoo ngi Ndar di leen fàttali ñoo ngi Ndar nit ñee bëri nit ñee bëri convoi bi dagg Ndar Sabay ñëw na ci yéen bu baax ah, Ndar bu baax gërëm noonu mi ngi noonu ñoo ngi Ndar bu Golbert Diagne Ndar Ndar bu Chimère le maire le mythique maire de Saint-Louis Saint-Louis bu Aba Mbaye Ndar bu Aba mu ñëw ñu ñëw seet si ko Aba Mbaye qui a déjà accueilli ki nga xamante ne moom moo di Barthélémy Diaz depuis ñoom ñooy assuré échauffement bi Ndar a ngi nii nit ñi dañoo bëri ba convoi bi xamul nu muy demee Ndar géej Ndar géej Guet Ndar Diamaguène Pikine Pikine Bango ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw Ousmane Sonko à Saint-Louis Ousmane Sonko à Saint-Louis tey ndar na door pa ndar na door pa kenn mënu ci dara mi ngi noonu nous sommes à Saint-Louis du Sénégal la ville tricentenaire la première capitale de l'Afrique occidentale française la ville qui a donné autant de maires autant de ministres à la République du Sénégal Saint-Louis Ndar ñoo ngi fi nga xamante ni moo di Ndar di soog ak agsi président Ousmane Sonko ànd ak leader Yewwi Askan Wi yëpp fii mooy Ndar Géej ñëw ñëw si Aba Mbaye il faut que Ndar bokk ci dynamique Yewwi Askan Wi diñ koy foqati loolu la xale yi wax dañuy foqati Yewwi Askan Wi à Saint-Louis avec l'ensemble des leaders de Yewwi Askan Wi le président Khalifa Sall le président Ousmane Sonko Cheikh Tidiane Youm Cheikh Tidiane Dieye suñu yaay Aïda Mbodj Maymouna Bousso Ndar Géej a ngi nii Ndar Géej a ngi nii te ma wax leen ne ñoo ngi juste ci entrée bi ku xam Ndar xam ne fii soriwul gaaru ceer bi waaye nit ñi fees nañ del ñu agooguñu jaama gën ñu biir Pikine dugooguñu Nord dugooguñu Soor dugooguñu Xor dugooguñu Bango

ñu ngi noonu le convoi reprend le convoi ñu ngi jëm fi nga xamante ni moo di xolu Ndar le président Ousmane Sonko ànd ak ñi nga xamante ni moo di les leaders de Yewwi Askan Wi

mi ngi noonu ñoo ngi Ndar ñoo ngi Saint-Louis convoi bee dagoon waaye ñi ngi ñëwaat ndaxte nit ñi dañoo bëri nit ñi dañoo bari lool loolu moo taxoon ni convoi bi dagg ñu ngi xaar beneen parti oto yi notamment bu président Ousmane Sonko ak leader yëpp rejoindre point bi ñu nekk bi nii c'est assez difficile de progresser tamit parce que dafa bëri nit bëri nit macha allah dafa bëri nit tey gëm naa ne guddi gi guddi guy dugg ci histoire la gëm naa ne gëm naa ne guddi ndar ji luy dugg ci histoire la gëm naa ni guddi gi dina ñoo xamante ne fii jaar kooku compatriote, la tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi, Sonko, venu avec l'ensemble des leaders de Yewwi Askan le président Khalifa Sall, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Youm, Cheikh Tidiane Dièye, Maïmouna Bousso, Aïda Mbodj, de porter leur et voir la population Babacar Aba Mbaye le jeune de Taxawu Sénégal Aba Mbaye bu Ndar Aba Mbaye le jeune entrepreneur Aba Mbaye bu bëgg Ndar Aba Mbaye xale bi taxaw di jàppale waa Saint-Louis ci loolu la ñu nekk convoi bee bëri président sori lool fu mu ne lii moo indi convoi bi dem di taxaw moo ngi noonu Saint-Louis de Guet à Bango de Guet Ndar à Bango de les populations attendent attendent le président Ousmane Sonko l'homme qui cristallise tous les espoirs les ambitions les déterminations les énergies positives Ousmane Sonko à Saint-Louis dëkku Golbert Diagne Ndargéej ndar go Ousmane Masseck Ndiaye ndar geej ndar a ngi nii ndar jox Sénégal autant de maires autant de ministres ñi nga xamante ne ñoom ñoo diñ le professeur Mary Teuw Niane en route pour rejoindre cette dynamique là la dynamique Yewwi Askan Wi la dynamique portée par le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko et les leaders de Yewwi Askan Wi ici à Saint-Louis Ndar Géej Ndar bu Ndar Ndar waa dignité ñooñu ni nitu Ndar yi génn Samba Ndar yi génn Samba Ndar yi génn Samba Ndar yi génn nañ noonu Ndar Géej Ndar Géej c'est dire que nit ci kaw terrasse yi nit kaw terrasse yi Saint-Louis qui rejoint la dynamique Yewwi Askan Wi jama gën ñoo ngi ñëw di nga convoi bee guddu convoi bee sori nit ñi bëri nit ñi bëri yéen a ngi koy seen noonu président Ousmane Sonko di saafonteeg askan wi di saafonteeg nit ñi tey guddi la tey guddi ndar la mi ngi noonu Askan Wi Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi Yewwi Sonko ñoo ngi fi nga xamante ne moo di ndar ñoo ngi fi nga xamante ne moo di ndar ndara ngi nii fii opération foqati la fii opération foqati la tey la démarré Barthélemy Diaz ànd ak jot nañ fee doxantu sàng Khalifa Sall Cheikh Tidiane Youm Cheikh Tidiane Dieye Aïda Mbodj Maymouna Bousso Déthié Fall Ousmane Sonko ñoo ngi ni di dugg fi nga xamante ne moo di ndar ndara ngi nii ànd ak xale yi ndar géej ndar génn na saint sorti Saint-Louis est dans la rue dans la nuit de Saint-Louis fii moom amul c'est-à-dire minutes ñoo ngi mel ni ñu nekk ci bëccëg te di ñuy soog dañuy soog a door bu ci kanamee bu ci kanamee ba ñu dugg Pikine ba Sénégal ba ñu dugg Diamaguène ba ñu dugg Xor ba ñu dugg Soor ba ñu dugg Goxumbaaj ba ñu dugg Gendar incha allah ci kanam lay doon. ndara ngi noonu tey gëm naa ne difficilement difficilement mën a progresser oto yi demul oto yi demul convoi bi demul ndax nit ñu bëri ndax nit ñu bëri convoi bi demul waaye c'est le rendez-vous et la jeunesse saint-louisienne veut à tout prix honorer ce rendez-vous avec Ousmane Sonko le leader de Yewwi Askan Wi et des patriotes du Sénégal il faut que véritablement affaire bi il faut véritablement que Saint-Louis bokk Ndar dafa war a bokk Ndar dafa war a bokk Ndar dafa war a bokk moo taxit xale yaa noonu ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu le président Ousmane Sonko à Saint-Louis accueilli triomphalement à Saint-Louis dara ngi nii dara ngi nii dara ngi nii dara ngi nii dara ngi nii dara ngi nii Ndara ngi nii Ndara ngi le président Ousmane Sonko accueilli triomphalement à Saint-Louis Saint-Louis du Sénégal la ville tricentenaire dans cette nuit ce lundi Ndar Géej ñoo président Ousmane Sonko ngi nii nit ci kaw terrasse yi ndara ngi nii borom ndara ngi nii borom ndara ngi nii waaye mais ndara ngi bëgg a jël pee ndara ngi bëgg a jël pee ndara ngi bëgg a ndara ngi bëgg a jël pee Saint-Louis ci la bokk ci la bokk ndara ngi nii ndara ngi nii ndara ngi nii ndara ngi nii ndara ngi nii ku mën na def ku mën na def Saint-Louis est de prendre la palme Mané Mané Mané Saint-Louis Ndar a ngi jël ngi jël pe Ndar ngi jël pe de mémoire de Saint-Louisain lii musul am Thank you. quoi. teel nii ma jël a wàcc affaire yi yàggul combat ku nekk da nga gis jikkoom gel bi nee ma sànq ku ma wàcc si ma ne ko man maa mën a wàcc ah day sew rek ah ah dana wax rek ah dama bàyyi ma rek Thank you. noonu unité bu dëkk Saint-Louis ñu ngi lay ñaan mu dem si kanam su ko defee ñu defar ñu defar caravane bi mu naay Saint-Louis kontaan seen président daal di waxtaan bi bala ngeen aja sécurité bi jëlee leen ma loolu aja xale yi xale yi xool leen fi ngeen jaar mag ñi dee leen xool leen fi ngeen jaar aja ñu jàpp ñu kenn gaañ kenn Barthélemy Diaz Ousmane Sonko Babacar Abamay ñoo ngi noonu Saint-Louis qui dit oui Saint-Louis qui ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais ñooy accueillir ki nga xamante ne. jafe la lii lu lii lu jafe la ndara ngi nii lii lu jafe la ci ndar ci doomu ndar waaye tey ji président usmaan Sonko lii la waa ndar teeroo lii la ndar waa teeroo il est 22 heures fii nga xamante ne moo di Saint-Louis guddi waaye nit ñaa ngi fi nit ñaa ngi fi depuis 14 heures 15 heures ñenn ñi depuis 9 heures ñu ngi fi président Ousmane Sonko ànd ak ndaw yi ànd ak waa Ndar ànd ak Samba Ndari ànd ñoo ngi nii di progresser difficilement maa ngi leen koy wax Ndar dafa génn tey Ndar daa mel ni rek daa bëgg a jël pee te soreetu ko Ndar ngi nii lii mooy marée humaine lii mooy marée humaine ñoo ngi Ndar Géej Ndar Géej opération foqati moo fi war am Yewwi Askan Wi président Ousmane Sonko ñoo bëgg foqati dëkk bi di Ndar ay waay daanu dina ma yomb de aca mi ngi nii je disais de mémoire de Saint-Louisain de fils de Saint-Louis jamais un tel accueil n'a été accordé à un homme politique à cette heure de la nuit si tardivement sans sortir des t-shirts des sandwichs Ça a acheté des consciences. Ce qui se passe à Saint-Louis est inédit. J'en perds la voix. Saint-Louis assure sa remontada. Saint-Louis assure sa remontada. Ils sont taximans, ils sont transporteurs, les bus, les particuliers, les camions frigorifiques. ñëpp taxaw ñëpp taxaw ndax président Ousmane Sonko. moo ñëw tey ndar xale yi nee nañ duñu reer waaye lii est-ce reer lii mbégte ci xol bànneex ci xol ndara ngi noonu nit ñaa ngi ci terrasse yi nit ñaa ngi ci balcon yi nit ñaa ngi fépp nit ñaa ngi fépp nit ñaa ngi fépp ni ngi noonu ndara ngi noonu saint du Sénégal ku mën na def ku mën na def ku mën na def ndara ngi nii Sonko moom la terale nii moom la ñu tertoo nii ndara lii lii doy doy na waar lii doy na waar ndara ngi ndaw nda pour ñu mën dem lii mësta am lii mësta am ñoo ngi ndar géej nii ndar géej nii ndar géej nii le président Ousmane Sonko Ndar Géej a ngi nii Ndar Géej a ngi nii ñoo ngi noonu Barthélemy Diaz Aba ñoo tijji doxantu bi ñoom ñoo Aba Mbaye tête de liste départementale bu Yewwi Askan Wi fii ci Ndar am na ñoo xamante tey duñ fi traîner ndara ngi ni ndara ngi nii Saint-Louis noir de monde pour accueillir le président Ousmane Sonko on progresse oui difficilement yombul yombul yombul nit ñee bëri nit ñee bëri ñoo ngi progresser waaye difficilement la nit ñee bëri ndar yëpp a génn di tertu bëgg a teral Ousmane Sonko ànd seen doom tête de liste nationale Yewwi Askan Wi fii ci département bi mu di Babacar Aba Mbaye mu ànd ak Barthélémy Dias ak leader Yewwi Askan Wi yëpp Khalifa Sall mi ngi ne Yaay Aïda Mbodj mi ngi ne Cheikh Tidiane Dioum Cheikh Tidiane Dieye ñëpp a ngi ni dara ngi nii ndara ngi nii ku mën ndara ngi nii Saint-Louis du Sénégal la ville tricentenaire la ville tricentenaire qui accueille aujourd'hui la de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi Sonko avec l'ensemble des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi Il est 22 heures passées. Saint-Louis est dehors. Saint-Louis ne dort pas. ñoo ngi fii nga xamante ne moo di Ndar Saint-Louis département de Saint-Louis région de Saint-Louis ville de Saint-Louis fi nga xamante ne tey leaderu Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ñëw fas yéene doxantu biir Ndar ànd ak président Ousmane Sonko ak leader Yewwi Askan Wi yëpp jàppale si ki nga xamante ni moo di tête de liste départementale bi Ababacar Mbaye Aba Mbaye moom tête de liste bi moom moo nekk fii ci département bu Saint-Louis tey nag suñu doxantu bi fii borom Ndakaaru dafa ñëw fekkee ko mu di Barthélemy Diaz daanaka moo fi jiitu depuis ci suba miñ ngi fii ba jot na doxantu ba pare waaye mi ni nii su wetu doomu président Ousmane Sonko. loo leen ci xamul dugooguñu ci biir dëkk bi des na lu bari des na lu bari def ku mën mi ngi noonu ñoo ndar géej ndar bu Golbert ndar bu Babacar Aba Mbaye saint du Sénégal la ville tricentenaire la première capitale de la OUEF première capitale du Sénégal Saint-Louis mi ngi ni Saint-Louis mi ngi ni Saint-Louis mi ngi nii il est 22 heures passées nit ñaa ngi génn xale yaa ngi ci mbedd dëkk baa ngi woy bur may Sonko ndam Sonko jël ndam le lii moo fi am yéene la yéene la waa Ndar génn nañ waa Ndar génn nañ 22 heures passé na Barthélémy Diaz Ababacar Mbaye président Ousmane Sonko Khalifa Sall Déthié Fall Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Youm Aïda Mbodj Maymouna Bousso président Moussa Tine ndara ngi nii ndara ngi ngeen jëf waa ndar jërë ngeen jëf doomu ndar doomu ndar yaa ngi noonu ba ci seen balcon di seetaan di teertu lii mënata am mësta am ndara ngi nii mën na def ku mën na def ku fi am goro itam bu la neexee nga def ñu xool ku mën na def ku mën na def fii opération foqati moo fi am opération foqati opération foqati Saint-Louis dit oui à la dynamique Yewwi Askan Wi le vert jaune rouge frappé de l'étoile verte sur la bande jaune Saint-Louis Saint-Louis Saint-Louis Saint-Louis ku mën na def ku mën na def ndara ngi nii xool leen li xew ci kanam xool leen li xew ci kanam xool leen li xew ci kanam nit ñaa ngi dox nit ñaa ngi dox lii mooy Ndar Géej Ndar Géej nee Ndar Géej nee na waaw président Ousmane Sonko mi ngi saafonte ci xale yi moom adiya yaa ngi ñëw joxati nañ ko téere joxati nañ ko téere sànq téere alxuraan mbuus bu fees dal ak téere alxuraan lañ ko may moom mooy adiya yi nañ ko beneen téere adiya yaa ngi ñëw Ndar Géej na du des ci ginnaaw Ndar Géej a ngi Ndar Géej ngi nii Ndar Géej a ngi nii ku mën na def ku mën na def ku mën na def Ousmane Sonko à du Sénégal mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu Ousmane Sonko le leader des patriotes du Sénégal la tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi di fàttali Ndar Yewwi Askan Wi la ñuy voté Ndar Yewwi Askan Wi la ñuy voté xool leen xool leen suñu yaay yi xool ngi nii Ndar ngi nii Ndar ngi nii lii mësta am mësuta am de mémoire de Saint-Louisin de mémoire de fils de Saint-Louisin jamais un accueil a été si triomphal à Saint-Louis, aussi tard dans la nuit, sur ces allées tricentenaires, ces quartiers populaires, ces quartiers du Sénégal, là où bat le cœur des jeunes, le cœur de l'avenir, les ambitions, la détermination de la jeunesse saint-louisienne. Dañoo engagé kenn fayu ñu chante-t-il. Nous sommes à Saint-Louis du Sénégal. ndara ngi nii ndara ngi nii ndar géej a ngi nii ñoo ngi ndar géej ñoo ngi ndar géej Ousmane Sonko Barthélémy Dias Aba Mbaye Khalifa Sall Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Youm Aïda Mbodj Moussa Tine Plan Linguère Maymouna Bousso la caravane nationale Yewwi Askan Wi accueillie triomphalement ici à Saint-Louis Saint-Louis noir de monde xale yaa ngi noonu ndara ngi nii ndara ngi nii ndara ngi nii ndara ngi nii ndara ngi nii Saint-Louis ville de Saint-Louis département de Saint-Louis région de Saint-Louis la caravane nationale Yewwi Askan Wi mi ngi ak agsi guddi na 21 heures a a ngi nii heure de temps après li ñu progressé bëriwul li ñu progressé bëriwul ndax nit ñee bëri ndax nit ñee bëri nit ñaa ngi ci président Ousmane Sonko xool leen suñu yaay yi xool leen suñu yaay yi ne bés bi Ousmane Sonko ñëwee Ndar maa ngi ne woon fii nekk ci xale yi di woy yaakaaru askan wi yaakaaru sénégalais yi yaakaaru jeunesse yi ñoo ngi ni Ndar ñëpp génn tey bés bu historique la walla guddi bu historique la lii mësta am amul président de la république bu ko am fii nii ci ndar amul homme politique bu ko am fii ci ndar doomu ndar doomu ndar doomu ndar wane seen bopp Ousmane Sonko et la dynamique Yewwi Askan Wi à Saint-Louis Saint-Louis du Sénégal la ville tricentenaire qui accueille la caravane Yewwi Askan Wi Barthélémy Dias borom Ndar Ndar a ngi nii Ndar a ngi nii mani leen ma ni leen de mémoire de Saint-Louisin lii mësut am lii guleet ci ndar lii guleet ci ndar samba ndar yi génn nañ lingeeru ndar yi génn nañ doomi ndar yi génn nañ tey ñëpp génn tertu président Ousmane Sonko ak leaderu Yewwi Askan Wi ñoo ngi fii nga xamante ne moo di Ndar Géej te soreeguñu ci biir dëkk bi ñoo ngi fi agsi vingt une waaye jamono yi daanaka une heure de temps ni convoi bi avancé néew na lool néew na lool ndara ngi ni di tertu Ousmane Sonko ànd ak seeni doom Ababacar Mbaye Aba Mbaye ne moom mooy tête de la tête de liste tête de liste départementale bu région bu département bu Saint-Louis Ababacar Aba mi ngi noonu mu demoon ci élection locale yi def score bu honorable waaye nag instant bi législative yi opération foqati la opération foqati moo tax président Ousmane Sonko ñëw fi nga xamante ne moom moo di ndargeej te moom fu mu jaar rek day foqati tey ku bañ Ousmane Sonko doon nelaw yàlla ko def mënoo ci dara ndar géej a ngi nii ndar géej ngi nii ku mën na def ku mën na def ku mën na def ku mën Sonko plébiscite la mi ngi noonu di remercier la reporter la grande feuse Mbour News la ak journaliste ñu àndal yëpp Mbaye bu Asid TV Ben Taleb Sow coalition Yewwi Askan Wi Zaki la photographe Mbod Fall caméraman Amdi infographe Aziz droniste l'équipe de communication de Yewwi Askan Wi ay jàmbaari ngeen ñoo ngi Ndar Géej ñoo ngi ndar géej Sadekh Top suñu grand le grand ndar a ngi nii ndar a ngi nii ndar a ngi nii waaye Yewwi Askan Wi seen téléphone bi fay na waaye Yewwi Askan Wi seen téléphone bi fay na Voilà, nous sommes à Saint-Louis, Saint-Louis du Sénégal, la ville tricentenaire qui accueille le président Ousmane Sonko et les leaders de Yewwi Askan Wi. Les jeunes, depuis une heure de temps, ils chantent, le nom du président Ousmane Sonko. waaw ndax fii ci Saint-Louis mas nañu accueillir nit nii que soit pouvoir wala opposition ndax li ñu gis nii ci nit. yaakaaroon ne personne ne pourrait battre le record de Mbacké personne ne pourrait battre le record de Diourbel personne ne pourrait battre le record de waaye Saint-Louis a mis la barre très haute xool léegi nañu accueillir Ousmane Sonko Abba ak Barthélémy Dias xool léegi nañu accueillir les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi xale Ndar foowuñu ils ont mis la barre très haute gars yi ñii na ñene bàyyi ñu dund lii niñ bàyyi ñu dund ambiance bi ndax lii du am benn yoon du am ñaari yoon du am ñetti yoon lii nañ ko dund nii rek xamatuñu kañ lay am Ibrahima à vous. walaay Ben Taleb Sow de la coalition Yewwi Askan Wi et il a fois raison de mémoire d'homme de mémoire de Saint-Louisin jamais un accueil a été si triomphal la nuit amul du président de la République du musicien du champion coupe d'Afrique du champion coupe du monde président Ousmane Sonko moom rek moom moo am tey Ndar Géej Ndar Géej wane na boppam Saint-Louis est entré dans la dynamique Yewwi Askan Wi Ndar jël na pee maa wax Ndar jël na pee maa wax Ndar Géej a Ndar Géej a la mobilisation à Saint-Louis elle celle de Linguère, celle de Daara Jolof sous la pluie, celle de Touba, celle de Mbacké et la pluie encore. ndara ngi nii ndara ngi nii ku xam histoire saint xam Saint-Louisien yi nga xam ne lii lu jafe la ci waa ngi Ndar Géej agsi nañ fi ay vers euh, vingt une il est vingt deux heures passé waaye ba léegi nii difficilement la ñuy progresser xale yaa ngi noonu ànd président Ousmane Sonko Ababacar Aba Mbaye nekk ki nga xamante ne moo di tête de liste départementale fii ci Ndar Barthélémy Dias borom Dakaru jóge Dakar ñëw ngir may doole ki nga xamante ne moo di xaritam doomu ndeyam Aba Mbaye ñoom ñaar ñu yàgg lool ñëw président Ousmane Sonko ak leader yu Yewwi Askan Wi yëpp Khalifa Sall Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Youm ñoom ñëpp Aïda Mbodj Maïmouna Bousso Moussa Tine ñoom ñëpp ñu nekk ci voyage bi mi ngi noonu ci kanamu oto yi ci kanamu convoi bi nit ñaa ngi fi fees dal moo tax progression bi yéex moo tax progression bi yéex waaye lu mënta am nañu xam ni waa Ndar sigil nañ Ousmane Sonko sargal nañ Ousmane Sonko teral nañ Ousmane Sonko ndar gee ni Ndar Géej ngi nii Ndar Géej ngi nii Benam. Diallo Diallo. mbokk yi lii moo nekk lii am ci diwaanu Ndar Ndar géej nga xam ne yaakaar nañ ne ci histoire Sénégal mësul mobiliser woon nii pour homme politique mësul mobiliser woon pour kenn mais tey jii nii ngir coalition Yewwi Askan Wi ak leur tête de liste. Ousmane Sonko gis ngeen ndar nu ñu génnee gis ngeen ndar nu ñu mobiliser ndar a mi la barre très haute ndar a remporté le pari de la mobilisation bu ñu yaakaaroon ne kenn du ko mën a kenn du mën a dabe ci waa Mbacké kenn du ko mën a dabe ci waa Louga kenn du ko mën a daje dabe ci dëkk yoo xam ne jaar nañ fa ñu def fa bain de foule bu doy waar ak n'importe quelle heure muy taw wala nag bi di tàng yéen yéen a gis a di xew fii nii ci diwaanu Ndar Géej ah man dama nañu bàyyi ngeen apprécier rek waaye dafa am lu am solo lu am solo mooy tey jii nii li am solo tey mooy na gars yi récupérer seen carte électeur de parce que loolu mooy falaate bain de foule am na solo baromètre la dafay wane à quel point tu es populaire wala tu es impopulaire askanu Sénégal wan nañ ne yeewi askan wi ànd ak le président Ousmane Sonko ñoom la ñu àndal ñoom ñoo fi les personnes populaires parfois da ngay yaakaar ne Ousmane Sonko sax mooy président de la République du Sénégal tellement nit ñi niñ ko xamee tellement nit ñi niñ ko bëggee tellement il draine les foules waaye gars yi li ëpp solo. li ëpp solo mooy soir du 31 juillet ngeen jël seen i carte yi dem voté ji sécuriser le vote su ko defee ñu mën a cohabiter avec cet gouvernement gouvernement boo xam ne at ak ak ak lu teg rek moo ko ko dese fii nii te on va encadré encadrer l' action du gouvernement ci li ko dese ci mandature am mandat bi nga xam ne moo ngi war a jeex en 2024 boobu mooy second et dernier mandat fii dañ fi tere troisième mandat de dañ ko fi tere moom xam na ne mënu ko fee am waaye coow loolu waru fi jugaat bu fekkee ne am nañu la majorité au soir du 31 juillet cohabiter avec le régime de Macky Sall encadré ko gunge ko fexe ba suñu ressources yi fi des dañ ko di dilapider ndax jaay nañu suuf si jaay nañ géej gi luñ ñu desee ci dëkk bi yaakaar na bëriwul. waaye loolu c'est à nous de le protéger suñ ko bëggee protéger nag. faut que ñu votel la coalition Yewwi Askan Wi wala boog la la coalition Wallu ça dépend ci zone bi nga nekk loolu moo dafa important moo tax da ngeen war a mën a gën a expliquer ban zone la ñuy votel Yewwi Askan Wi ban zone la ñuy votel Wallu comme par exemple fii ci diwaanu Saint-Louis Yewwi Askan Wi lañ war a votel donc gars soo ñaar dégg nit ñi wax leen ci ban localité localité bu nekk wax leen gars yi fa lañ war a voté mais surtout jëli leen seen carte électeurs yi ngeen jëf